le patronage des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Le rendez-vous annuel des entreprises africaines. Porte de l'Afrique. Événement placé sous le patronage de son excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Dakar accueille ce 14 octobre la 19e édition de la cérémonie de remise de distinction la plus prestigieuse d'Afrique. Des délégations venus de tous les pays du continent africain commencent déjà à converger sur la pointe la plus occidentale de l'Afrique pour célébrer le dynamisme, communier avec la culture du pays de la Teranga, avec la légende panafricaine Omar Penn et la vedette des soirées dakaroises Keba en direct sur plus de 11 chaînes depuis le grand chapiteau du King Fat Palace. Réservation au 77 462 0753 ou le 77 170 20 37.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 Chers amis fidèles internautes, vous qui avez choisi la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste vrai comme nous ma leen koy vous vous su ne abonné ba noppi bu la cloche de notification bi vous jot une vidéo en exclusivité numéro

patrimoine audiovisuel bu Sénégal lu ko waral dafa marqué empreinte am jëm ci wàllu ay chronique marke marqué jëm ci wàllu ay analyse am li tax ñi taamu ko tey indi ko Sénégal wërngal këpp yaakaar naa ni li ko dalee deux mille vingt et un ba tey jii fii ñu toll. constance sam moo ko ko may cohérence am moo ko ko may ak analyse yu point yoo xamante ni da koy def te nit mënu ci dindi taraftal ay ni te lu mu mës a teg daf ko booleeg ak ay firnde yu leer nañ kon yaakaar naa ni kooku tey su waxee ci askan bi war nañ ko mën a déglu xalaatam war nañ ko mën a déglu kooku kan la mën naa ko dippee un patriote lu tax ma ne patriote la parce que dafa bëgg a réewam kan mooy ku bëgg sa réew maanaam ki nga xamante ni da nga gis ni que sa réew mi mi ngi nar a suuxe nga jaayanteeg sa bakkan jaayanteeg lépp malgré lu mu mës a dégg yëpp ci ay menaces ci ay xoxatal teewut position bu mu nekkoon foofu la nekkoon li ñu ci ràññee constance constance mooy lan mooy ki la wax ren wax jëf ji nga ko pendant cinquante ans même chose la lay répété waat kon dañu plaisir taille dalal kii nga xamante ni le grand chroniqueur Bah Diakhaté ci suñu plateau VIP People TV comme ni ñu koy waxee rek Bah nuyu naa la dalal ak ci VIP People TV. waaw euh, Tange ginnaaw bi ñu santé yàlla. julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam donc ñu may ma rek comme ñoo koy faral defee rek nuyu kilifa diiné yi amin donc diko tambalé fi nga xamanteni mom moy al khalifatul am ki nga xamné moy jité jiitee euh, yoonu mu señ mutaqa mbake bashir di nuyu señ babakar si Mansour di nuyu Papa Mahi ñass di nuyu xalifa Yoff Jàmmalaay waa Pire Koki Niass euh, Léona Niassène donc di nuyu aussi nga xam l'église catholique di len ziar bu baax baax di ñaan yalla subhanahu wa taala yalla yàlla oyofal yeen bi amin di nuyu activistes républicains yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu tous les républicains du Sénégal di am mbégte loolu jàkkaarloog yow Tange comme li nga wax ci man rek mën naa ko wax tamit ci yow. Ah, parce que combat bi euh, du du ñun kese. parce que aussi euh, yow it ku ñu ràññee nga ci li nga xamante moom mooy xeex bi ku participer nga aussi ci yee ñu baree bari ci ay sénégalais yoo xam ne amaana am na lu fàttoon seen i gët. ba lu bëree bëri mën ñu ko woon gis mu lëndëmoon lool yor bi lëndëmoon lool wéetoon lool it. ci ñu xuusoon jàll yow it ci nga bokk. jërëjëf ñu lay jaajëfal bu baax a baax di am mbégte de retrouver les internautes fas yéene waxtaan incha allahu taala. kon yaakaar naa ni suñu invité noonu la nuyoo man mii di wax ak yéen. yagna naa dégganteeg moom téléphone ñu bëré yaakaaroon nañu man ak ba jaxaté dañuy gisante dañuy déggante yalla bima tim tay lay laay gis ba jaxaté en chair et en os ginnaw lolu ci caméra la ko mësa gis ginnaw lolu téléphone la mësa a dégganteeg moom te li ma dégganteeg mom téléphone sax yaakaar naa ne mën nañ ko compter matul ah, cinq fois donc ce qu'on dit souvent rek gaay dañuy wax lo xamante maîtriser wuñu ko xamuñu ko mm. alors que toujours kaddu gi ben la analyse ben la motax tax ma war constance ba duñu xoss luddul ñeuk dem fenn dañ la gis nga jël ben point bo xamanteni dañ lay dippee activiste activiste nak je crois que moy un républicain activiste moy ko xamanteni da nga am ay idée am ay xalat ñu gis ñu bari légui dañuy dugg ci activisme pour ñom activisme Saga, la pour ñom activisme manam dénoncer la pour ñom activisme manam menacer la pour ñom activisme tay manam moy xarab doomu nit on peut en citer le cas de Akhenaton Ousseynou on peut citer le cas de Ousmane on peut citer le cas de ki nga xamanteni on peut citer le cas de Guigui on peut citer le cas ñu bëri bëri bëri de nekk ci ce jeu bi tuddee seen bopp activiste mais nous musuñu teg plan nous musuñu teg solution musuñu teg idée musuñu teg argument mais dañuy tëb tëb rek di xeex yow choisi choisir activisme républicain ay analyse pointue, pointu ay analyse pertinente. en plus da ngay gëstu information ba indi parce que ba nga dalee wax ba tey nit c'est quoi le rôle de l'activiste waaw question bu am importance de temps parce que baatu activisme ñu bëri sàllaloo nañ ko seen bopp dama jàpp ne réew mi dañ toll woon ci euh, nit ñi dañ doon jóg di wax te jóg di wax la cay niru lu dëgg la dëgg ñaar bi c'est-à-dire que ñu bëri ci ñu doon wax au wax négatif la gisuñu woon dara ci li nga xamante élément positif la yoo xam mooy permettre doomu adama ñu mën a face à une situation très bien donnée da nga lim ay tour légui man ñu tudd mënu ma leen sax tuddee activiste. pourquoi parce tout simplement activisme nekkul di wo ay ndaw jox leen alal ngir ñu taal seen réew ça c'est pas de l'activisme. activisme bo gis rek def. d'abord c'est pour consolider li nga xamanteni moy ay acquis yo xamanteni ci walu démocratie ay acquis yo xamanteni ci wàllu justice ay acquis yo xamanteni ci walu développement sa réew donc lolu ñu ci soxla ko c'est-à-dire que l'activisme devrait être une force de proposition et non une force de destruction ce n'est pas euh, des forces de proposition c'est des forces de destruction depuis que nous déglu Ousmane nous déglu qu'est-ce qu'ils ont dit lan sénégalais participer donc à un donné aussi nous nous donc activisme alternative pour au moins euh, nu mu tudd yee ndaw yi renforcer ci li nga xamante moom mooy capacité mën capacité d'écoute ak capacité de recueil d'information parce que aussi bu fekkee loolu lim nga ñooñu a à côté des des des chaînes télé wala ay chaîne site web yoo xamante ñoo nekkoon à côté par la désinformation par la manipulation manam ci wax ay xibaar yo xam du deug ci wax ay wax ruumandaat yo xamanteni ni ci jublu mom moy au fait euh, wo ci defar réew mais li ci jublu moy ndaw yi médecin nguur jóg jàmmarloog moom ci loolu di nga mën a gis ni euh, dangay ngay déglu chaîne bu mel ni xalaat TV nga déglu chaîne bu mel ni ay jàllale TV nga déglu ay ay chaîne télé yoo xam ñu ngi fii lu mel ni Walfadjri rek lu mel ni yenn journalistes yi nga xam ñu ngi nekk si yenn plateau yi au fait ñom ñu bari ci ñom amna luñu jotta wax ci askan bi ñu wolen tribunal fim de ya tax ñu dew leen amunu ko boko la majeure partie ci ñooñu ngi wax yépp ne dañ ñii dañ nekk liberté provisoire ñi faf nañ daw génn réew bi donc il fallait que donc mu am ño xam dañuy taxaw te du man kessé man ngi koy wax légui yow yaang fi woon donc ñeneen ñi ngi fi woon et c'est l'occasion ñu sant leen gëreum leen donc amna ci ñu bari ño xamanteni man xamna naa ya ya françois Françoise gay ngi fi Mati Tropam yaa Mati Fall béy na ci waram ya Anita Diop béy na ci bax ya ya di di Diémé ñom Emine ndjay donc o braço Talla Kagoulard euh, commissaire kayta ya le major Kandji ya mustapha jahata ya ñi nga xamni jop ci c'est des républicains yoo xamni damay baña joom jop nañu xex jamarlo ak ñi nga xamanteni mo moy la force la force du mal et donc lolu moy li nga xamanteni tayji peut être japp nañ ni wala meunes na yaakar ni ça participer à équilibrer un peu le débat politique au sein du Sénégal. ñi gis ni ke ñi nga lim ñoñu ñep manam participer nañu ci xex bi mais tolloon nañu ben jamono ci Sénégal ñoñu nga xamanteni dañuy saga tuddew ñu leen ay activistes républicains melni dañuy gagner won combat bi bi population bi gënoon leen jox nopp xex bi metti won trop sur sa côté metti sama côté metti ci côté Moustapha Diakhaté ñuy jot ay menaces mais dañu gisoon dafa melni population bi dañu croiser won sen bras pour déglu li nga xamanteni manipulation la y ba yenn chaîne de télévision yi aussi un complice. parce que récemment dañu mëna a wax ni que Walfadjri mi ngi commencé équilibrer depuis que Ousmane Sonko nek derrière les barreaux mais avant on voyait que télé Ousmane Sonko la won tout ce qui était manipulation fofu lañ ko indi on avait vu le cas de Babacar Touré Keulo bi muy taxaw di accuser

Euh, c' est des yoo xamante ni dañ nekkoon ci l' espace public yaakaaroon ni euh, balaa may ñëw ci moom damay ñëw ci lu am solo li nga xam wax nga ko muy contexte boo xam ne contexte bu mitti woon na li waraloon mu mitti mooy euh, dafa am benn genre système boo xamante ni benn machine de propagande boo xamante ni dañ demoon ba benn jamono nit yu bëri teg ci loxo. muy réseaux sociaux yi muy Facebook muy TikTok muy Twitter est-ce comprendre nga muy Instagram. c'est-à-dire ils occupé ndaw yi nag ci désinformation bo xamanteni amul kenn ku taxawoon à côté oser quand même euh, voilà dire le contraire parce qu'il y avait la dictature de la pensée unique waaw dañu dañoon doon bañ saaku leen saaga ndey ni doon bañ ku leen attaqué ni bañ ku songu sen kër en un moment donné il fallait siffler cette fin de la récréation mm-hmm. pour faire comprendre aux Sénégalais que ni di wax ni c'est des Sénégalais comme nous am nañ carte d'identité am nañu carte d'identité am nañu kër am nañu kër ñun cest bu fekkee nit ki taxaw nañ nañ taal kër diw amal fi lu taxaw na nañ taal kër diw mhm. ndax loolu loolu rek moo la situation même bu fekkee ne sax yon yon yon nangou lolu mais à un il fallait faire face à cette à cette force du mal faire face aussi pour wane leen carrément que lu ngeen sañ def nit nit sañ na sañ ko def lolu ben la ñaareel moy pour ma ñëw un petit kaaw ñom Babacar Touré Kéwoulo Babacar Touré Kéwoulo c'est un euh, c'est un menteur boo à vitesse exponentielle. Mhm. pourquoi parce que xam nga euh, un jour j'ai dit que Babacar Touré et je le dis je le répète. xam nga dama ne Babacar Touré Kewoulo bu journaliste la du dem di seeti Adji Sarr pour nger 40 millions pour guérir ko Sénégal. guerre Adji Sarr 40 millions pour guérir ko Sénégal. c'est-à-dire que man je li ma je mooy toog ci télé wax. jox ko opportunité pour me porter plainte si c'est pas vrai moi, ak Ousmane Sonko. ba porter non il ne le fera pas il n'ose même pas. parce que moi je na.

et il ne l'a pas demandé dafa ne audio bi la. mais dafa ne Adji Sarr moo ko pour mu dimbale ko ma ne ko génneel benn capture d'écran bu la Adji Sarr mos a woo ci àddunaam. Sarr pour mu dimbale comment Adji Sarr peut accuser Ousmane Sonko de viol Ousmane Sonko un problème yooyu pare Adji Sarr di woo Babacar Touré pour mu dimbale ko. parce que moment boobu. Mhm. Euh, déjà demoon nañ ba jaaxle. Mhm. parce que euh, ñoom mosuñu woon yaakaar Ousmane Sonko Babacar Touré Kewoulo dafa mën a taxaw plat, bu taxaw ne le dossier est vide.

un métier de journalisme loolu benn la kooku mooy je Touré à deuxième bi mooy Pape Alé Niang Pape Alé fait partie ñi gën a sànq ndawu Sénégal Pape Alé est ci la parce que c'est quelqu'un qui fait dans la subversion maanaam day indi ay wax créer ay wax ay waxi fen nag lay doon mm-hmm. du nekk dëgg bi mujj mooy nee article L29 mm-hmm. bi nga xamante dans son quatrième dañ ne ceux qui sont en état de contumace nee na ci dialogue politique bi lañ ko dugal ci biir code électoral mm-hmm loolu mu nek lo xamanteni ñim koy waxal peut-être ay xalé ay xalé dañ cey bëri. mais ci code consensuel bu euh, nu tudu sax euh, bu bu Kelle si 4 élection. Hmm. quatrièmement ba sax nak moy ceux qui sont en état de contumace. donc mais buy wax da ngay gis ci commentaire yi da ngay tiit. pourquoi parce que da ñi muy waxal. parce que quand on parle avec des analphabètes duñ comprendre. c'est ça le problème. mais tay système de manipulation bobu lu tax mu joggé ci réseaux sociaux bi ñew ba ci journaliste bu melni pap Pape un journaliste c'était de renommée Nous respectons ko partout ci parcours fi mu jaar ba ndaw yu bari tay suñu journalisme grâce à Pape Alé Niang ñu gis Pape Alé changer changé complètement ci Ousmane Sonko on dirait que c'est un journaliste qui défend Ousmane Sonko sur ses mensonges. contexte bi Pape Alé joté ci Ousmane Sonko la. et je l'ai dit Pape Alé en 2015. dafa demoon fini ñuy poste la poste. pour mu am convention de partenariat pour ñoon di ko jox xaalis mhm. mu leen defal publicité. waaw ça n'a pas abouti. Mhm. xaw a defoon nañ ko sax convo defaloon nañ ko sax convention bi mais ça n'a pas abouti quand même moment bobu contexte bobu nak ci la ko Ousmane Sonko wo may ko li nga xamante moom mooy Dakar Matin mhm. il en a fait ben matériel de de guerre bo xamante contre le régime et ça télé la koy waxee encore par àll bi may dégg donc li tax mu gëna contre nguur gi moy jamonoy Sidé Dia dafa demoon wuti ji convention sorti wul est-ce qu'on comprendre nga la poste finalement mu dem Ousmane Sonko may li nga Dakar Matin il est devenu un ennemi de la République je parle pas de Macky Sall d'accord euh, Pape Alé est devenu un ennemi de la République parce que le abali gët foo la foo ko c'est comme ça qu'il est qu'il est voilà faut la daanoo ci li mu daanoo à côté de Pape Alé il y a Sène waaw Clédor Sène Pastef jël nañ ko lavé ko raxasu ba mu ko devant l'opinion fekk ne de ses mains parce que voit xamante ni waa këram dañuy toog

tini déjà site bi sax mom ku ko xol xamne fofu di jam ñaañu mhm. mu ne jam ñaañu gaay dañ doon gas ba jek jek pétrole di ban euh, gaay fofu depuis 1960 ñu espoir de pétrole comme ça c'est des mensonges ah ah. ñu woxo ne ko dañ lay bolé caméraman mhm. yobul la ba ci bërepp bi nga mëna nga mëna filmer li nga wax ko deugal mais ba lek crédo dabul ah. benen def na ben documentaire de cela 2 ans mhm. dem fofu ci alukay bon dañ ko informer ne ko dafa am hélico bo xamne chaque semaine dafa ñëw ay mouche ouais crédo est parti ba mu demee foofu noonu mu def documentaire avec Sénégal 7 bu Pape Ngagne Ndiaye. waaw ba mu demee def documentaire ISRA ñu woo ko ba mu ñëw bureau ISRA. Mhm. ñu ne ko non Clédor recherche si bu mën xam ne booy xeex la la mouche GG. waaw boo koy xeex da ngay sànni ay ay weñ yoo xamante ni c' est des mouches stériles. stériles waay mouches stériles yooyu ñoo mën a tax. ñoo mën a freiner la reproduction des mouches. des mouches GC on le fait pour pour préserver li nga xamante ni moom mooy le cheptel. mais est ce que xam nga Clédor ba ñu ko waxee loolu mu ne dinaa ñëwaat ba léegi deux ans. Hmm. Clédor pas revenu pour wax de sénégalais donc ce qui veut dire que ni c'est une machine de propagande et de manipulation boo xamante ni tey yu bëri na genre yi genre Matifali, Fall yi genre Anita Diop genre euh, nu mu tudd sax euh, genre ñoom genre Californie genre ñoom nangam ñooñu buñ taxawee dëggantaan yaay war nañ mën a dimbali ndaw yi ñu yee et en toute euh, et en toute en respectant li nga xam normes de la République est-ce que tey gisoo ni que dafa am une partie de la presse sénégalaise bu participer ci machine bobu nga xamanteni machine de propagande de manipulation et de mensonge la ci ñu melni ni Clédor yu melni ni Babacar Touré Kewlo yu melni ni Pape Alé parce qu'on on voyait que la télévision nous, ñoo leen doon jël di leen teg ci plateau yi ñuy gëna valoriser li ñuy wax 2021 jusqu'à 2023 on a constaté plus de 40 réels on a constaté combien de saccages est-ce que as la presse sénégalaise amuñu benn sénégalaise amuñu benn bu ci presse sénégalaise même à l'étranger. Ouais. parce que xam nga dafa dajeeg contexte boo xamante ni au-delà du contexte juridique bi nga xamante ni moom moo fi nekk yàlla a le contexte lié au à l'exploitation des hydrocarbures. waaw mooy mbirum pétrole ak gaz. Mm-hmm. Ousmane Sonko est un cocktail cocktail la bo xamanteni heureusement que l'État a su désamorcer cette bombe là. Mhm. mais cocktail la bo xamanteni xam nga li ñuy mine piégée. waaw c' à dire mine la bo xamanteni ni déjà mine euh, mën nga ko woowee AP ou bien AC. mais mine la bo xamanteni ni de grenade. grenade terrorisme islamiste grenade li nga xam moy MFDC grenade ay mécontents yo xamanteni ils ont maay bobu am dañu dañu mel ne nguur donc il avait il avait capitalisé. aussi grenade des djihadistes du Mali. des djihadistes du Mali il avait engagé avait engrangé li nga xamanteni ay ñu mer la ñi ñu bëgg dal Sénégal ni nangam mu de sa personne. maintenant mu que fragment la euh, pour si quoi. si vous voyez la France via France 24 via TV5 Monde via RFI. ils sont à un moment donné jamono jamono jamono jamono euh, dañ doon ligue bon pourquoi parce que.

ni coup d'état nañu ñii ñi ngi nekk ci ay jihadistes et consorts Sénégal ak Mauritanie ñoy exception bi nga xam ñoo leen fàtt pour ñu mëna a yegg ci géej gi. effectivement donc maintenant fekk Sénégal tàkkul bu euh, euh, loolu il faut ñu ñu toj loolu pour Sénégal Sénégal mëna ñu mëna a jaar Sénégal mëna am accès directement vers la mer. Hmm. donc loolu moo tax. boo xoolee au-delà de notre presse euh, presse nationale hmm. presse étrangère bi jëm jëm na ci liggéey liggéey boo xamante mujjul sotti hmm. alhamdulilah rabbil alamin parce que Sénégal moom du yeneen réew yi mais presse nationale bi xam nga la moy problème bi Tange. c'est-à-dire que euh, ñun on a pas journaliste journaliste la question du ñi déglu télé. du journaliste. parce que man japp né journaliste euh bo demee ba tok jakarlo Canada ngay wax. Mm. il te faut au moins nga am déjà ben ben ben capacité bi nga xamante mo lay permettre yow mi dem di recherche ay information mm-hmm. nga xam noo koy noo koy récupérer. effectivement boo déglu ki déglu kele pour me respecter au moins le critère principal d'objectivité mais on a on a on avait une presse qui xamante ni da de ñu terrain dañuy taxaw cootu tout uniquement pour pour wane effectif euh, effectif euh, policiers pour les déplacement policiers pour permettre aux autres de déplacer au et mm-hmm. ça ce n'est plus de la presse c'est des traîtres à la nation donc loolu moo amoon et à un moment donné l'État a sifflé la fin de la récréation et tey dit ñu ils sont entrés dans l'air donc donc tey bon voilà euh, et heureusement aussi que

mais le plus grand menteur de l'histoire politique du Sénégal le menteur le plus sanguinaire de l'histoire politique du Sénégal Ousmane Sonko déjà nous avons fait fen patrimoine depuis 2016. Il faut que nous ñu ñëw parce que nous avons souvent ngay brandir des documents <coughs> xamal que Ousmane Sonko a fait une déclaration de patrimoine en 2016 je crois que am nañu document yi mi ngi ci régie bi mën nañu ko dugalal en attendant ñu xool ko nee naa leen lépp lu ñu fiy wax rek preuve la bi mu déclarer patrimoine en 2016 ne benn kër la yor nga génne ay document yu wonee ni que amoon na beneen kër boo xamante ni mi ngi ko jaay en 2018 déjà muy document bii nga xamante ni ñu ngi koy gis nii yow fan nga sukkandiku woon ba wax loolu ak foo jëlee document yi xam nga mi ngi commencé déjà ci sur l'honneur il a dit sur l'honneur ma déclaration de patrimoine ouais. Ousmane Sonko a juré sur son honneur ouais man j'ai écrit à l'OFNAC pour voir les ni nous situer ci ku nit ku mhm. déclarer sur l'honneur mhm. pour être candidat à une élection. Mhm. mu fenn ci patrimoine à la qui la ci yoon wax. Ousmane Soko en 2016 dafa ne dafay déclarer ci ne ben kër la am. Ah. dispose d'une. ba tey mën nañu dugg mën nañu duggalal documents yi fofu au niveau. si régie bi dispose d'une villa. R mhm. plus 1. E. Mhm. nee na moom loolu la am. maintenant ba ñëw ba 2018 on a vu que ni Ousmane Sonko. dafa am benn keur bo xam mi ko amone foire ba ci ses jaay ko benn femme bu ñu woy Assou Gueye. moy ci cité magistrat yi. effectivement Assou Gueye nek doomu Fallou Gueye Fallou Gueye moom holding Gueye. Mhm. ak ay doomam ay njabootam. Mhm. donc maintenant en 2018 mi ko jaay ci cabinet Mahmoudou Ali Touré comme notaire. Mhm. en 2018. et le plus grave moy jaay Ousmane Sonko jaayul keur gi ci maanaam ñu keur gi ci kanam notaire bi. fu ñu fayee kër ci biti. Le notaire, il le dit, il dit que ni, euh, nous il dit en outre, la présente session euh, est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 100 millions de francs CFA. Je que le document voilà, de 100 millions de francs CFA, lequel prix est payé hors la comptabilité du notaire. Hors la comptabilité, madame, il ou le notaire, nous avons fait qui biti, qui bêtement, manque à 100 millions de francs. 100 millions de francs CFA. Donc, ce qui veut dire que ni, il euh, y a Anguissou Roche, est-ce que ça signifie que les kër gi da jox parce que tout simplement euh, nous mu tudd sax euh, comment dirais-je euh, comment nous ñu koy sax prête non la ci bëgg jublu woon parce que Bob, xam na ni 2016 def na parti déclaration Sénégalais yëpp di wax naan Ousmane Sonko benn kër la il mentait aux Sénégalais et en mentant aux Sénégalais il a juré sur son honneur ce qui est grave

Ousmane ko ferme bi mu am Sébikotane. Mhm. et Sénégalais yëpp mujj nañu xam ne Ousmane Sonko am na ferme Sébikotane. waaw loolu man xam naa ko dem naa ko. très bien ferme boobu daa am ay kayit. waaw kayit boobu dafa am ci naaru libanais bu mu ko jëlee muy Ousmane Boutib. waaw mais nan la def ba jot kayit bi. waaw. maanaam nan la def ba jot ci tool bi. Ah. redressement la ou pas. waaw xam nga un inspecteur des impôts et domaines. mën nga jël te du am taas. mën nga jël te du am taas tey ma ma war a fay ay redressement mu bëri ay milliards. merci mënu ma la ko jox ci xaalis ma ne am naa pàkk bi kaay ma jox la ko. te su ma koy jël voilà su ma koy jël je ne prends pas en mon nom. waaw tey jii xam nga Alioune job génne woon na fi l'histoire des filaos. waaw ñu gis ne am na ay activistes yoo xamante ni dañ cee am ay kër. waaw. la bande des filao. ba ci Almadi 2 fa 3. Pape pap Pape la dem ci comico émission ñu fait jox fa ñaari juste posé poser maa dit. Comment on de moi? Hmm. donc ñaari kër yoo xam ñoo takkaloo Pape muy tabax R plus 5. fan la que maintenant Sénégal li fi moi, man euh, parce que boy, si boy la. Ah. parce que ah. mais Ousmane Sonko dire que ni je vais vous dire une chose encore xam nga 2016 il a fait une déclaration de patrimoine waaw mais fal nañ ko 2016 boobu nekkul dara. du dara. dafa bëgg nekk député. waaw fal nañ la maire. lan moo tee def déclaration de patrimoine lan moo tax génné ko en 2022 il a été nommé il a été élu maire de la maire de Ziguinchor maire de Ziguinchor lan moo tere Ousmane Sonko def déclaration de patrimoine ci ko xam da ngay départ ne nga sama compte bancaire. 200 mhm. 000 francs mo ci nek xaw ma. benn kër la am da day fen Amna kër amna ferme amna ay terrain té nima ma won nak sama àdduna Ousmane Sonko néma wala ay fakam néma kay kaay nga dem manam kaay ñu dem fi mbaxana doone benn nga wax li ngay wax mu leer ils ne le feront pas et je les attends mais l'essentiel mooy ça dit que c'est un mensonge sur son honneur il n'a même pas d'honneur sax maintenant légui dama né la ça dit que bu ñu fofu nga ñew ñu ne la fan lañ la mettre 2022 mm-hmm. nga né mois de mars je vais faire ma déclaration de patrimoine même bu féké def goxo ko mo moo guéné wat génnewaat ko parce que bu ko guéné diggante 2016 ak 2022 5 ans Ousmane Sonko limu am ci patrimoine ça dépasse des milliards. mais xaalis boobu fa la jógee. mais fa moom dañ jox war a mais tay est-ce que lu ñuy naan ni que Pastef parti la boo xamante dafa làqatu ci politique mais entreprise terroriste mo nek ci ginnaw mais ya ñana beaucoup. xam nga tay ji Ousmane Sonko. Mm-hmm. mo wax na la ko sànq c'est un cocktail. waaw mais mais euh, xam nga SAID ñoom ñoko ko syndicat des agents des impôts et domaines. ñoom ñoo ko parce avant Bassirou Diomaye nous mu tudd sax kii moo yor euh, l'autre là euh, Diouf Oui secrétaire général bu SAID non. Oui secrétaire général ils ont fait en 2005 mille deux syndicat des agents des impôts et domaines. secrétaire général ñoo indi Sénégal.

aussi duñ def cumul de mandat. ah ah ba il est député maire. donc seen fan yooyu yeb ñu fen ndawi Sénégal yi. Mhm. ba ni may waxé ni ak yow di ah mais mom voilà donc fen. wa mais tay ba ci bobu la gis. Sénégal yi xam nañu Ousmane Sonko teewut ñoom ñu ma seen bët bugguñu gis fen boobu lu Ousmane Sonko wax ñi ne dëgg la pour wax la première fenu usmaan Sonko Moustapha Diakhaté laa di illaa l'a répété bi ko aji Sarr ne da nga ma violé li mu njëkk a bind mooy xaw ma ndaw si dew ma fa. te loolu jabaram Anna Diamanka confirmé na ko ne ko dama ko laaj mu ne xaw ma fa dew ma fa mhm. ñu tourné Ousmane Sonko bind ci euh, ñuwaat def point de presse ne naam dem naa fa mais vingt une heures laa fa dem mhm. sénégalais yëpp xam ne ni Ousmane Sonko dafa fen li mu wax du dëgg mhm. ñu war a jiixi jaaxe ñu continuer ànd ak moom populisme bi topp ko Ousmane Sonko lépp lu mu mës a wax soo tegee vidéo bi gis nga safaan si lu tax sénégalais yi continuer di ko topp lu tax bëgguñoon gis fan yooyu euh, je dirais pas que sax mais

te li ngay wax léegi nee na woon demu fa xamu fa jabaram wax na ko. waaw fenkat moom ba bu nee romb ji ay fenkat ñoo lay suul yi. d'accord ba ni mu nekkee kaso laa la wax de ay fenkat ñoo ko wër bëgg koo sauver. d'accord Juan Branco bu mu génnee lu mu wax dafa am insuffisance rénale. dafa am hypoglycémie sévère hypoglycémie sévère. est-ce que comprendre nga. yooyu yooyu wér na ñu génne ay jabaram. waaw. ay jabaram ne. nañ leen jox ñu faj ñu faj parce que ni ñu ko gisee. Aïda Mbodj génn. di jooy finalement course ba lañ ñu waxee ne Aïda Mbodj ak ñoom Habib. dañ ko fekk sëñ Moustapha Sy moo ñu boo xoolee ñooñu ñëpp moo tax man la fenkat mhm. ay fenkat ñoo koy robi. moo tax ba ni mu dee maanaam politiquement ay fenkat ñoo ko wër les vautours mais xam nga yooyu yëpp vous tey a réglé situation bi. xam nga il y a le boo xoolee euh, euh, euh, nu mu tudd sax arab yi nañu ay at ñu nekk ci bu koy neex ans ans hmm. personnes parce que le terme de nombre moo tax ñuy woowee populisme la terme de nombre fu ko yàlla waxee ci alquran tegu ci lu baax walakinna aksarahum yajhalun walakinna aksarahum laa yu'minun walakinna aksarahum kaafirun walakinna aksarahum mushrikun li ëpp ci ñoom dañuy bokkaal lu ëpp ci ñoom yéeféer la ñu ëpp ci ñoom dañoo réer ñu ëpp donc nation de nombre ok munit ba sax ba muy wax sax mujub jamono dafa ne naasun saalixuuna xaliil fii unaasin suu in kasiir man yaasihim aksaru bi man yutiihum nit yu baax yu néew ay nit yu bon yu bëri ñooy gën a néew foofu ña nga xam dañuy bañ dëgg donc tey notion de nombre man bu ma gisee ñaamaan euh, maanaam Sénégal gi yëpp damay xam ni Sénégal gi yëpp buñ booloo ànd ak nit mhm. mooy loolu maanaam loolu loolu baaxul il faut que ñu ñu xam ne donc loolu tamit da si joué ñaar bi mooy état dafaa dafay nekk position bi nga xamante ni euh, l' état n' est pas compris xamul tax parce que citoyen bi des fois mu ànd nekk ci état danaan mhm. dañuy gëmloo Sénégal yi ne leen état da leen di nax ok moo wax la benn affaire dans la gestion du pétrole waxu fi ne 10 pour cent la Sénégal am. si ci pétrole bi. xam nga fenn leer loolu. mais est-ce que ce n'est pas une système de manipuler. non moom laa pour nga wax ko ndaw yi pour ñu comprendre ko. il faut nga dem toog jël sa temps. ok man nag noonu laay def man damay au-delà des live damay jël damay jël sama temps dem toog ak ndaw yi. Mhm. yor samay contrat sama téléphone boo waxee man la mi ngi nii. est-ce qu'on comprend Ça dit dire que donc nous nga mën def nga sauver ndaw yi donc bañ parce que c'est avons avancé def def avancer dans le temps donc c'est pas par rapport à l'élection 2024 c'est pas par rapport à l'élection 2029 mais c'est pour une durée boo ça va permettre aux jeunes yi nga actuellement jeunes yi nga xam ils auront des responsabilités demain et le travail bi nga xam dañ ko ont def dañ ko responsabilité mais les responsabilité de xam ne da koy bàyyi ay ndaw euh, tal, sat, pier, nangam loolu lañ formé ndaw yi donc loolu baye au Sénégal nekk du wóor. d' accord kon yaakaar naa ni comme ni mo leen ko waxé on est dans grand entretien Qui ñu dalal tay c'est le grand activiste le républicain Bah Diakhaté Bah légui léegi yaa tuté Pape Alé Niang ñu gis ay fan yu génn mu yëkëti ay menaces brandir ko dafa interviewé ben nervi nervi bi wax na ay nit yu mu japp fat leen fu mu leen sul nervi bi wax na ñi ko fay xaliss par Wave ñi ko fay xaliss par Orange Money lépp dina ko génnee bobu batay tey gisuñu interview bi ñu gis souvent nga def ay révélation ba paré woné ay preuves récemment gis nañu benn audio bo xamanteni génné nga ko ci Pape Alé mu dem ci benn marabu xol nu muy marabouté le juge Mamadou Seck pour que mu jox ko passeport nga cité waat benn révélation par rapport à sa maladie dafa bëggon dem faju ji tay yow mën nañu xam fan ngay jëlee say information say sources avec tout ça. <laughs> non parce que gars yi tu travailles pour l'État. état. xam nga l' non non je travaille pas pour l'État. mais un ennemi de de l' état xam nga man dama ma gëm muy version rouge. dama gëm république. ce que je suis en train de faire c' est pas un combat bu ki dem naa sama benn sama benn xarit ma man parfois je me dis que il faut ma xaw a arrière tuuti sax politique mhm. parce que le combat que je mène c'est un combat pour la république. la république. Euh, man dama gëm drapeau national l'intégrité territoriale gëm les institutions yi nga république. effectivement maintenant ba paré gëm institutions yi nga xam comme mm-hmm. donc dama ko gëm dama maintenant nak légui cest dire ci dama avec tous les moyens tous les moyens même même non conventionnels utiliser contre ah, pour moi il est il est il est il est dangereux. un mm-hmm. un ci euh, euh, mm-hmm. ne pas peut-être voilà qui ma ko je ne na nangam def nangam. ça dit que que donne passeport. Mm-hmm. Euh, Pape Alé Niang xam naa ni moom sax ak papaam sequñ du bëri mais way juróom bu jigéen moo nekkoon doon di jëti xale yi sax ci yenn passeport yi mhm. moom mu soxla woon passeport am pour génn dem bitim réew mhm. Jules Mamadou Seck moo ko mu dem ci ay maaman du benn de waaw du benn maaman kese moom ak moom ak Maimouna Bousso waaw c'est-à-dire que ni du Maimouna Bousso kaawam mooy kaawu kër gi mu fi temps pas ñu génnewaat ko moom ci boppam xam na ni elle naa pas gain de li may wax tere laa koy wax. xam na ko ci boppam xam na ni. Hmm. elle n'a pas et elle n'aura gain de cause fu ñu ko yaakaare xar fa xuuf ak maam kon man ndaw yaa li ndaw yi moo tax may wax. Hmm. c'est-à-dire Pape Alé Niang na lu gën a garaaw li ma wane man. ci digganteem ak Ousmane Sonko. lu gën a garaaw wax na lu gën a garaaw laa wax li ma xam nga lii si juge Mamadou Seck la. waaw te dem ci yoon. parce que dama ko tegal preuve bi mu la nañ ko midi. te la ma ko jox la ma teg moo ëpp fuuf. tey Pape loo xam ni. Ah. su ma ko tegoon tey sénégalais dar seen non. non dama ne il est faux. Pape tey en tant que journaliste. mu dem ba xam ne nervi bi rey na ay nit. rey na ay nit ba pare mu complice ak moom ne interviewé na ko yóbbu ko jébbal ko yoon. xam nga. Euh, ba mu koy wax dafa ne moom yoonam nekkatu ci. waaw li mu xam yëpp da koy wax. waaw Pape Alé Niang c'est-à-dire que nervi bi wax ba gis nga kanamam. man su may interview lu mel noonu sa kanam laay teg. benn ñaareel bi mooy buñ la waxee mënoo wane kanamam ok da koy bëgg protéger mais Wave yi ñi ko yónnee xaalis. waaw ko wane. non mais mais en ku la Wave am nga capture bi. mais waxuma la loolu en tant que journaliste nga gis nervi mu rey nit yow sa yoon bu mu nekk ci ki nga fal. doo dénoncé kooku man événement yi événement juin yi mm-hmm. avant muy mercredi bi mm-hmm. quatre personnes la gis yu suspect fi mm-hmm. ñu yor sen téléphone commencé waxante di bëgg taal man ma jël sama téléphone woté dik ñu bolé ma koy élément ma génnee sama arme ñëw jàkkaarloog ñom man leen dëkku fi ñu ma ma ne bu fi kenn toog effectivement ils étaient quatre personnes effectivement mais xamna ni ñi ngi doon woté pour ñu placer sànni ay cocktail molotov non yow lila animé ay animé Pape Alé Niang bokkul parce ah. que il dit pas la vérité papa day fen affaires, ces affaires de nervi là Mais c'est que dans sa tête de picoleur ça ça n'existe pas xam nga nak mais nak ni nga toll ces dimensions yo xamante da ngay da ngay délirer Pape Alé xamul nervi mhm. xamaanewut nervi te du la mës war nervi mais dama ko defal bu yomb dama ne ko même bu fekkee mënu wone nervi bi na wone capture d'écran comme man ni ma def capture orange money yeeg yoy euh, xam nga def na capture orange money bi donc mom na def capture orange money ne diw mi numéro bi mo yone hmm. nervi bi xaalis ça n'existe pas ça maintenant nag léegi c'est-à-dire que muy mom muy euh, ko mën a gis xam nga après ci la dem ndax ndeysaan dem interview jabaru Ousmane Sonko yi mhm. parce que moment bobu il voulait faire mal à l'état parce que yakar bu yàqeeku la parce que wax naa ko ne ko man ak Alita yëpp déjà maa ngi koy nuyu di ko ziar ne ko na wane na wax bulletin médical am la moo ci nekk. kan mooy Alita.

joxuñu ko liste de parrainage mm-hmm. ñu né parce que touram nekatul ci liste électorale mm-hmm. ay avocat am def recours dem cour suprême mm-hmm. cour suprême appliquer li DG wax ñu gis la nga lire ben référé article 307 article 307 bobu est-ce que tay avocat Ousmane Sonko ñom ñom ñi jang droit xam li code électoral wax est-ce que ñoom xamuñu woon auparavant que Ousmane Sonko li ay kii nu mu tudd lii Thiénaba Fall wax mi ngi ci ay droit xam nga pour déjà commencer par Euh, élection législative yi. waaw. bu ñuy wax ci problème liste dem dëcc faale consort. waaw je te souviens très bien. waaw bañ ñoom ñoo dem bindal seen bopp. Mhm. jaawal leen seen bopp. Mhm. jiñ ko DG ak état bi. Mhm. la même chose avocat Ousmane Sonko n'a pas d'avocat Ousmane Sonko a une troupe de comédiens. Ziguinchor mooy bu muy daw procès bi bi ñu joxee procès Sall Cess teeg yoon jeex ne fii laa yem ak yoonu Sénégal justice Sénégal ma woowee du mu wuyu ji état de contumace ñett ñi ñoo ci nekk koo xamante ni dañ la jàpp mettre la sous mandat de dépôt tëj la nga évadé waaw ñu war la àtte chambre criminelle kenn gisu la parce que évadé nga ñaareel koo xamante ni

accusé non litige moi, cas Ousmane Sonko. il est accusé de viol. mais il bénéficiait d'une liberté maanaam de d'un contrôle judiciaire. donc ñett yooyu ñoo am. maintenant Ousmane Sonko troisième mandat. la. maanaam dañ ko ja dañ ko accusé ba pare. Euh, mettre ko sous contrôle judiciaire bàyyi ko muy dox ay muraadaam. maintenant moom mu toog mu ne moom mu mu ne c'est-à-dire que sama diggante ak yoon fii la yem. Mhm. dootuma dem wuyu ji yoon. Mhm. loolu mooy tu te rebelles la justice. de mhm. ton pays maintenant se rebeller justice pays mooy buñ la woowee doo dem wuyu ji. waaw ah. ce qu'il a fait. maintenant boobu la boobu la boobu jàppee ni moom déjà il se te rebelle ci la demee fi nga xam moom mooy Ziguinchor. boo ngeen fàttalikoo procès ba mu démarré. ñoom jéem nañu fexe. pour au moins euh, ñu jéem a ñu jéem a renvoyer. ñoom amuñu woon droit à la parole. amuñu woon droit à la parole parce que tout simplement. par buñ lay jugé par contumace. manam hmm. say avocat du wax. ok jugement par défaut ñoo bo boo fàttalikoo jugement mak Mame Mbaye Niang. Mame Mbaye Niang avocat mënuñ jël par mënuñ jël parole boo fàttalikoo aussi jugement bi bu ay avocat mënuñ jël jël parole. Hmm. ba dem ba dem ba avocat day Khady Ndiaye sax mujj gerte ñoom ñëpp ñu mujj gerte. moy nit la troupe de comédiens. Hmm. qui joue très mal scénario bi Ousmane Sonko teg la troupe de la troupe de comédiens bi ne woon biir biir biir biir biir biir biir tribunal. ils l'ont mal joué. ci lañu ñu fofu après. <coughs> ñu ñew il a été condamné.

Madame voler c'est prendre le bien de quelqu'un il a pris le, bien, de quelqu'un et il l'a écrit même sur ko soxlawul non je lui ai arraché le téléphone arraché le bien de d'autrui ça s'appelle vol ci terme juridique maintenant loolu lañ ko jàppee jàppee wuñ ko euh, euh, affaire am ak Adji Sarr dañ ko jàpp

dafa bàyyi ba dem bu dugg kaso ba pare. Mhm. des jours après. Mhm. Ousmane Sonko a écrit. mu bind à l'attache à à monsieur l'administrateur général du greffe. waaw du greffe moom la ko sous couvert de nangam sangam. objet nous mu tudd lettre de non acquiescement. loolu amul ci droit. ok l'article 307 bi ngay wax dafa ne bu fekkee ne l'accusé non détenu. Mhm. s'il se maanaam s'il se constitue prisonnier. maanaam moom bu fekkoon jóg na dem. mu jóg constitué boppam prisonnier. contumace bi jeex na. voilà ñu jóg dem japp ko ngir dañ ko condamner 2 ans donc bu boba contumace ba jeexna ah. c'est l'article 316 du code de procédure pénale maintenant léegi ñaar yooyu amul dañ ko japp ngir benen fait mhm. pour me clarifier clarifier li may wax mhm. Bassirou Diomaye Faye bañ ko jappé ah. dañ ko japp pourquoi parce que dafa traiter Macky Sall les magistrats ay. outrage à la magistrature outrage à la magistrature. ñu jàpp ko dem mandat dépôt. mandat dépôt pour ñu dalaat ko beneen mandat dépôt dañ ko woowaat indiwaat ko ci kanam procureur. Uh-huh. dóor ko li nga xam mooy association terrorisme ak ñu demee noonu. waaw uh-huh. ko mandat dépôt boobu dóoraat ko beneen. donc mu ne yeneen chef d'accusation mu amaat beneen billet d'écrou donc maanaam beneen fiche d'écrou donc Ousmane Sonko en quelque sorte li tax ñu rajo ko mooy il perd tous hmm. ku ku mën ku mën te voter

la corruption tu vois le c'est euh, c'est clairement défini dans l'article 214 du code pénal du Sénégal. donc maintenant il joue très mal le scénario mal conçu par un homme à la tête de mais au final, est ce que avocat ci Ousmane parce que vous dañuy Juan Blanco, Ousmane Sonko jël na ko teg kaw parce que déjà recours bi nga xamanteni ni bi ñu leen rejeté waroon nañ ko def mais dañu xaar ba délai bi passé ñukoy sogo def. Mm. ba nopi à chaque fois au lieu que ñu défendre dossier Ousmane Sonko devant la justice mais ci médias yi lañ koy défendre ou bien def ko ben combat bo xamanteni combat de rue est-ce que c'est pas les avocats même pôle d'avocat bi. Mm. comme niko ko Cheikh Yérim Seck waxee woon. Ousmane Sonko suma ma doon moom day changer pôle d'avocat. mais avocats yi ils rien servi. ñooñu ça à buzz lañ doon avocat yooyu mu indi foofu. Mhm. bës lañ moo tax ma ne troupe théâtrale la kenn ku nek mhm. da nga ñëwoon pour fi ñu seen kii xaw ma amul attitude ñu ko tuddee sax. <laughs> pour sa benn cachet. sa bu benn cachet daal. maanaam doon acteur dal ñoo ko dañoo gaawoon ci Kopar Express ba nga xamante ya un candidat bu fi nek capitaine sen na Omar Touré sax kii ne doit même pas être candidat. parce que man dama jàpp 40 millions ñu ko joxon corruption la. donc il devait même pas sax euh, taxaw bi tribunal pour pour témoigner. pourquoi parce que subornation témoin lañ ko. waaw parce que jox nañ ko xal ba pare. dans une affaire bo xamné ne ça la lii donc maintenant c'est-à-dire que euh, man dama avocat Ousmane 32 avocats. ñu ont bon euh, Juan Branco c'est-à-dire que Sénégal nous mm-hmm. un homme insignifiant un être insignifiant. ñu jël ko et dama vais avocat. est-ce qu'on parle est-ce que xam nga ay CPI yi avocat sénégalais effectivement maître Dior Diagne nga gis

Et voilà, donc, dafa dem finalement ba raw Ousmane Sonko si vous vous souvenez très bien l'affaire de l'empoisonnement. Oui. bi nga xam nee nañu dañu empoisonné Ousmane Sonko wax ko fi fu nekk. mu c'est si si si fauteuil roulant. une semaine Ousmane Sonko assuma assuma assistance une semaine. maître Kassore jóge fi dem Paris. ñu fekk ñu fekk ko ci restaurant. le lendemain maître Kassore est parti en Mauritanie pour plaider pour son pour son client pour revenir au Sénégal mon Ousmane Sonko lui wax nous dañu empoisonné jox ñu Ousmane Sonko jox ñu mais Ousmane Sonko résultat ba def point de presse bu mu arrêté et jusqu'à présent il y a pas de suite. Non, yoy duñ ko de. Hmm. parce que xam nañ ni wess wut nga TIM, di wax ay termes yo ne xam ko. et termes wax ah, xam nga grenade lacrymogène. grenade grenade pimenté. gis nga yi ñu yem nii amuñu vrai grenade de gis nga grenade yi nii ah. ah. maanaam poivre bi daal bu am saf poivre bi ngay ci sóoli ak poivre moo daw ay ñu leen ko parce que au moins bu ñu demee ba Sénégal alkaati nii mhm. ay moroomu alkaatam taxaw ne ah. loolu sax buñ ko bu ko bu ko l'opinion internationale gisee xam ne ñii bëgguñu woon tiire ci kaw ñii parce que man man baa jaxate billaahi bu fekkoon man maa ànd ak sama nit

Parce que lui ou lui, moi, nous soutenons mieux. Il ne faut pas qu'on accepte au Sénégal, et l'on a au Sénégal, que des citoyens indisciplinés, des citoyens comme Hamoun Fouma le Dieu, des gens qui aillent au champ du Tal, des gens qui aillent Berthe du Tal, du Tal, Gaal, Bus, le Tal. Imaginez-vous, plus de 100 bus du Tal. D'accord kon yaakaar naa ni muy ba jaxate c'est l'analyse nee constance am ak cohérence am moo toujours ñuy soxlay xalatam par rapport mu koy développer pour la jeunesse ba dañuy ñew touti ci Benno Bokk yakar muy APR depuis que le président a fait son choix sur mu porter ci kanamu ki muy Amadou Ba mu wara diriger liste Benno Bokk yakar on a vu Ali Ngouille ah, Mamboy Diao. Je peux citer que ces deux cas, il y a Boun Abdallah John. Mais nous avons que nous, depuis 12 ans, de 2012 à aujourd'hui, c'est que Macky Sall lañ leen xamee ci gouvernement bi lañ leen le lu fa le seen loxo mi ngi ci lu ci bon à notre grande surprise Aly Ngouille Ndiaye déclaré candidature le samedi et il commence à dénigrer l'État. état lu mu njëkk wax maanaam mooy ñàkk sécurité ci est mi te mu mosoon ministère de l'Intérieur. intérieur bi ci topp maanaam c'est le chômage des jeunes xëyu ndaw yi dara amu fi li ci topp maanaam mooy lan nee na Sénégal ni ñu ko gouverner baaxul. tey en tant koo xamante ni dangay def say analyse naka nga jàngatee sorti Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao aussi qui commence à dénigrer sur les plateaux de Walfadjri. xam nga ñoom ñëpp delluwaayate weesu wut. ko doon tekki ci wolof lan la. am na ko ñàkk ngor maanaam ñu gore di. ñàkk ñàkk ñàkk weesu xam nga booy misaal Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao Boun Abdallah Dionne dama ciy mhm. misaalee comme jigéen buy sëy bëgg a tas. Mhm.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 et eh, je reviendrai sur l'affaire sur sur affaire engrais mhm. euh, ça en direct. mais ça dit que au-delà de Alioune Ngouille de di Boun Abdallah Dionne di wax il bu premier ministre Ba ministre de des finances. Ah. ministre de l'économie et des finances là est-ce qu'on Il y a nga un premier ministre. bu fekkee patriote nga patriote mhm. patriote la. Mhm. républicain nous ñu maanaam waruñu woon. Mhm. waruñu woon manam toog 12 ans ci wetu ñi nga xam ne jubuñu. Ah. gouverner wuñ bu baax liggéeyuñ bu baax. effectivement xam nga candidature Boun Abdallah Dionne candidature Aly Ngouille Ndiaye candidature Mame diaw yépp yëpp des candidatures yo xam candidature mer ngemb la. Mhm. moo tax ñu nga Amadou Ba euh mu tuddu sax bañuy wax waxu candidat il ne s' jamais positionné. waaw musul wax ni man candidat la mhm. Amadou Ba dafa toog bañ na ko yow la. deug la parce que dafa ne man maa ci Macky Sall wax. Ah.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

Mame jaawoo Diao billaahi président Macky Sall moo tax ñu xam leen. kenn xamu leen ci réew mi. waaw tax ñu xam la nag. nga ci moom nga jékki-jékki rek ñu foog la nga ne boo nekk candidat. Mm-hmm. dañu war a audit. waaw dañu a xam li nga foo ko jëlee. waaw man j'aimerais bien savoir ça les fonds yi ñu yor xam nga Amadou Ba tey. Mm-hmm. demul ak xaalis boppam Amadou Ba fonds wu Bokk Yaakaar lay demee. waaw fonds de campagne. mais ñoom dañuy wax fu ñu jëlee seen fonds. loolu benn la ñaar mooy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 comprendre c'est-à-dire mësuñu dégg décret. et pourtant ils ont été dans tous les combats. waay Moustapha Cissé c'est le gënul xeex. kenn dafa xeex bay bëgg a dee. waay comme tey dit ñooñu ñëpp président Macky Sall Macky Moustapha Cissé Lo mësu dégg ministre. déedéet mësu ko dégg. kër Macky Sall teg ñooñu ñëpp fee. Mhm. dem la yow Mouhamed Boun Abdallah Dionne def la premier ministre. waay jël yow la jël la yow Aly Ngouille Ndiaye def ministre de l'intérieur. ministre de l'intérieur ministère de l'intérieur. ministère bu kalaay la ci réew. def le ministre de l'énergie.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 Euh, moi, en tout cas, je regarde, j'observe. Euh, bon, voilà, donc... Euh, non, moi, j'ai eu les dossiers. Enquête d'investigation criminelle dont impliqué le Mamboy bientôt autorité de nous convoquer. c'est un... Madame, c'est un acte mhm. c'est-à-dire un ah. bientôt mais vous kenn wax candidat à d'accord parce que mais je crois bien que comment dirais-je man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 yàlla mosul yónni yónni bu ñaaw. dëgg la. <laughs> du ko def saa yónni bu ñaaw wala yónni du ko du ko def. Mhm. saa yàlla bu yónni yónni ku rafet. boo tànn njiiti da ngay tànn koo xam kii day présentable. waaw mais gis naa am ñoo xam ne fii Sénégal bi mhm. c'est-à-dire yëpp ñu ñun moo tax ñu taxaw dañu war a nekk suñu président bi. primo mooy c'est des nés intellectuels. Mhm. secondo mooy maanaam am na laa yoo xam ne ay raxasit lañu maanaam si société laa wax c'est des débris sociaux.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 Sénégal xam nga déclaration loolu la. di dem ba ci biir moo tax di moo tax conseil constitutionnel di jël temps pour vérifier ses carnets. effectivement donc ñu dem ba L29 ah. ah. du code du code électoral. est <laughs> yu bëri.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 mooy Amadou Ba mooy Idrissa Seck mooy le le candidat du Parti démocratique sénégalais mooy peut-être Khalifa Sall mooy Thierno Alassane Sall ñooñu c'est des candidats yoo xamante au moins on attend d'eux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 mais les autres Mimi Touré du candidate. candidate même ça il faut se méfier de ces gens là. non mais Mimi Mimi hein? les Sénégalais mënu gëmatuñu ko sax. non dañuy wut dans ndoll pour rek pour pour asseoir leur vengeance. effectivement sur une race de maanaam ci benn groupe de société. Euh, ci benn groupe de personnes. Mohamed Boun Abdallah même mer d'ailleurs il n'a même pas eu le temps de préparer un programme. pourquoi parce que simplement da doon xaar tànnuñu ko mu génn. Ah, ah. seen programme lan la war a xam nga programme lan la doon moom Aly Ngouille ak ñoom Mame Boye victimisation tirer sur l'État, ah. tirer sur le président Macky Sall wala sur Amadou Ba. Ah. donc loolu de programme. loolu de programme. nous sommes à nous sommes dañu nekk si benn ère boo xam ne mhm. et heureusement Cheikh Yérim Seck l'a dit. Mhm. fi ñu jëm des défis sécuritaires énormes mhm. tey loolu la Israël ak Iran da ngay xeex. Israël Palestine da ngay xeex. xeex bu métti. boo xamante ni ça va englober peut-être le monde dans son dans Israël du réew moo xam moom kott la. effectivement maintenant nga jógee problème Israël nga ne maa ngi jëm ci problème Russie par rapport ak OTAN. nga ñëw nga ne maa ngi jëm ci problème Sahel l' Afrique le Mali le Nigeria nga ñëw nga ne le Sénégal dafa war exploiter le pétrole en 2024 le programme le le qui doit gérer le Sénégal en 2024 mhm. dafa war nekk koo xamante nii na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 2018. il est parti chez les bailleurs. levé de fonds. 2014 le mm. plan Sénégal émergent. tey a vous ñu amee de pont vous avez un pont. vous avez un ay stade avez c'est lui qui est parti. On moins convaincre les bailleurs premièrement. de les convaincre deuxièmement en 2018 on a mis fan il devait faire une semaine. benn fan daf vous nous avez convaincus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 parcelle parcelle Guédiawaye boobu Guédiawaye. Guédiawaye waaw voilà mi ngi mhm. noonu. moom li ko tax a olha xam na ko. et puis voilà donc tey ay maire liveur maire influenceur maire touriste loolu la am bañ na ba Ousmane Sonko seen kilifa Ziguinchor bee ñu ko fal. puusul paasul.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 la meilleure manière de programmer jamono ju njëkk ji booy programmation la meilleure manière de programmer c'est d'entrer dans la dans le programme par des exercices effectivement nga jox élèves exercice bàyyi leen kenn ku ne bu defee exercice ci ngay mën planifier xam ne lii lañ soxla ak lii ak ak effectivement la meilleure manière nga nga nga testé woon leen nga yóbbu leen ci maire yóbbu leen assemblée nationale assemblée nationale lan lu am importance nga leen gis ñu proposer à l'assemblée nationale mosuñu proposer absolument rien du tout critiquer dénigrer te li ñuy critiquer xamuñu si dara léeg nit ka wax gars yi naan moo wëy xam nga ñaan woy parce discours bi xas nañu xas nañu dafa taxaw xas xass ministre bi la ko benn xamee ñun loolu la ñu yóbbu. fofu la ñu amee occasion pour gis ministre bi wax ko lo xamanteni ben loi du len top ben, eh, ñu dem di sen compte. waaw nga ne maire yi manam ñi maire yi gën a nul ci aduna bi da ngay xool benn parcelle lu mel da ngay dem Kër Massar nga xol da ngay dem Guédiawaye nga xol da ngay dem ça c'est-à-dire loolu mo la wax ni la meilleure manière de tester quelqu'un c'est de donner des responsabilités à Ziguinchor

à part mam Mam, moo doon diw wala seen nous de doonoon diw nous ñooñu dañoo liggéeyal yàlla ñu politique ñoñu dem ba am position wacc sen and dugg ci ay position politique jël ci parti ñu tontu len ci cadre politique talibé na dafa saga suñu pas-pas on peut citer deux cas le cas de Habib Sy bu sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh dafa publiquement ay magu mu yëkkati ay keddu ci Ousmane Sonko. moom nee na gis na lépp di début à la fin. mais Ousmane Sonko ci dëgg la nekk. te Ousmane Sonko taxaw ne ñëpp. dem naa Sweet Beauty. ñu xam ne ni ko contumace bi ñu ko tëj corruption à la jeunesse séq na fa ak ay xale yu jigéen. loo xamante ni l'islam da koy bañ. ñu gis sëñ Moustapha Sy ci gàmm bi. ñu màggal yonent bi Seydina sallallahu alayhi wa sallam. ñu war fa wax yenent bi jàngal fa jeunesse bi naka la ñuy royee naka la ñuy nàngamee mu def ko politique mm-hmm. Ousmane Sonko mu xawi sutura ñoom Habib Sy ak ñoom ay Aïda Mbodj mu weer leen diggu bëccëg mm-hmm. ba génnee secret Ousmane Sonko ne man maa ne Ousmane Sonko daanul crise mm-hmm. jël Alaaji Mansour mbay di xas jël Coumba Gawlo la accusé ne xaw ma lan sàmb soo moytul danañ la liggéey ne man maa ne waaye Yewwi Askan bi bu leen seeti xalif général des Tidianes sëñ Mbaye Sy Mansour mi fi toogal Alaaji Malick Sy parce que kooku jarul seeti tey ban jàngat nga am ci ñii nga xamante ne tey dañuy wàcc yoonu diine dugg ci politique ba noppi taalibe yi bëgg a jëlaat débat bi delloowaat ko ci diine. xam nga diine moom euh, dafa mel ni essence ak ndox. xam naa du ma tudd tur comme ni nga ko defee. parce que ma wax dëgg yàlla euh, mais dinaa wax loo xam lu leer la ko midi. diine ak àdduna dafa mel ni comme essence ak ndox. nga boo sottee essence ci ndox bii day jëm kaw bii jëm suuf. xawma diwlin dimanche mooy bi day jëm kaw bi jëm suuf yalla mo fiir gi nga yang wax sank ne diw mo ne ci al haqq min rabbik loolu yalla wax deug mi ngi bàyyeekoo ci borom bi borom bi lam mo lam moo tax alxaq mi ngi bàyyeekoo ci borom bi parce que haqq mo mën ta wessu li yalla wax waxu yalla ki wax ne Ousmane Sonko mo ne ci deug mhm. dafa fàtte ñaar mhm. diine dafa wax ni bu la jigéen tuumalee xam nga naafeq gi jiitu. Mhm. mu ngi commencé usta ustaas yi pare nga doon commencé. waxuma ñi nga ñi nga lim de quoi maa ngi wax ci ustaas yi. ustaas yi nekk fii. mooy ñoom genre imam Dramé boobu. te du imam Dramé sax moom du sëriñ. tey soose muy Aliou Sall muy yenn asatis ñoom Mbacke Seck et consort muy keneen kii. mataar Sarr xaw ma. non pas Matar Sarr am na keneen ku nekk foofu donc ñoom ñëpp boo xoolee. ba histoire de boo Beauté commencé. Mhm. dañoo fenal yàlla. ñoom ñooñu. wallaahi lazim parce que dañoo jël histoire yonent yàlla Yuusufa. Mhm. gaaral ko ci problème Ousmane Sonko. te bokkut. islam ñaari xeet tuuma moo am. Mhm. man Bah Diakhaté mu jóg ma ne tuumal naa Ousmane Sonko ne mi ngi séq ak Adji Raby gis naa leen. man defuma. waaw ñaar ñi def laa boole. man dañ may laaj ay seede su ma ko indiwul dañ ma war a caw. benn. kon cas boobu du kaawu Ousmane Sonko. waaw Ousmane Sonko kenn boolewu ko. kenn boolewu ko. maintenant ñu ne la bu fekkee ni kenn ci ñaan ñi moo boole moroom mi. Mhm. kenn ki muy indi firnde kenn ki indi ki ñëw waat. Mhm. kon Adji Sarr moo waroon indi firnde. Mhm. Adji indi waxtu bi mu fa teg ko. Adji indi lam soloon teg ko. Adji Sarr indi lam fa bàyyi muy spermatozoïde teg ko. man ni ko waay. bi tax Ousmane Sonko mu ne du ma dem. nee du def test sax ko def. kon ki wax ne Ousmane Sonko mo nek ci deug dëgg bànneexu bakkanam la wax. deug la kon lolou ben la ñaar mooy c'est-à-dire que yonent bi saa salaam loo ci guddeem parce que dañu toog ñi ñi gamu intéressé. dañu burdu bu burdu bi jeex. tag yonent bi saa bu mu jeex ñu tëjee ko ci gamu manam wax jaar jaaw yonent bi saa salaam ko nak ci euh, bindu mag ñu baax ñi muy xalaasu zahab muy bindu Cheikh Ibrahima Niass muy bindu nu mu tudd sax euh, comment dirais-je muy bindu euh, Cheikh Thierno Omar fuuti Foutiyou Tall muy bindu keneen ak keneen ak keneen kon boo ñëwee ba toog ci tànt amoo looy wax lu dul te buñ fàttali ko tànt boobu noonu ngay wax noonu tuumaal nañ fa yonent njaaloo mu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Daawuda tuumaal kii sàcc tuumaal kii njaalo ay yónent maasum yi wax naa léegi yàlla du yónni ku manqué yàlla du yónni koo xam xel mi matul yàlla bu la yónni da lay defar alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak yàlla bu la yónni fii ba yónni fii ba àdduna tukki boo ne daawuda alayhi salam boo ne souleyman alayhi salaam boo ne salaahu alayhi salaam ngay ne isa ibnu mariam alayhi salaam ngay wax parce que yàlla wa rafa'na laka zikrak

même bu nekké li ngay wax bu taxalé nga wax ko la wax de djew la té sëñ babakar si ibnu sëñ Abdou Aziz néna néwul newul kenn dagan na mais wéri njaalo mo gën ben djew non mais xam nga ki doon wax la wax ki doon wax wax na ba wax na ba wax manam ci famiyam mom peut-être ay xale lañ jàkkaarloon peut-être nit ñi wax ñu bari tax ko xam mal nga Abdou tout mal mhm. nga say wayjur ko xam ñok sa wayjur bu goor ñoo bok mhm. tuumaal nga ki nga xamante mooy ki fi toogal El Hadj Malick Sy tuumaal nga président bu fi toog tuumaal nga ko ku fi toog jéem nga ko napp am yónne ne yónne nga ay rawaan wa jéem nga napp Abdou Diouf jéem nga napp Ablaye Wade jéem nga napp Macky Sall kenn ku ne ci ñoom daa toog ba toogam jeex mu dem ay kàrta ko fi jële jëlee woo ko fi kon bu buñ toogee di ko dégg muy wax yenn yi wax fu dëgg yàlla man damay jàpp ne Sénégal ñoo bëgg débat rek mm-hmm. mais ñi muy tudd nag au fait ci la laa jëm mm-hmm. El Hadj Mansour Mbaye mm-hmm. yàlla yàlla guddal fanam. amiin ku Sénégal jox cër la. un rassembleur un bâtisseur. très bien mosuma ko dégg mu wax lu ñaaw mosuma ko dégg mu wax lu bon. Mhm. mosuma ko dégg mu xaajale ay nit. fu mu méttee sax moom la ñuy jëlee mu dawaatee ko. merci beaucoup. Euh, Kanta nag lu euh, mu tudd muy Kumba Gawlo Sekko muy Fatou Guewelo buñ demee ba guddi yonent bi moom mu mujj nekk guddi Sorano. Mhm. parce que ñooñu buñ ñu nee seen tur fi ñuy fi ñuy xalaat jëm fa mooy. Sorano wala Grand Théâtre waaw. donc bu nee ba guddi yonent bi saa salaam ñu mujj ko def guddi guddi Sorano moom da ngay jàpp ne guddi ga la mu yoola rek. d'accord maanaam y avait plus rien de religieux. d'accord moo tax yàlla day roos sa loo xam ni moo lay moo den moo yow ba pare nag balaa nga fa jugee yàlla xamal Sénégalais yi ne leen diw nii la mel. d'accord mooy que ni yeewi askan wi moom. fan la leen waa ji waxee carrément que dañ doon crise crise bi. Uh-huh. mooy kon yaa ngi yaa ngi def promotion ce qui veut dire que ni donc loolu man dama jàpp ne euh, comment dirais-je euh, Sénégal war nañu gën a yeewu tuuti bon euh, voilà donc ñu contexte bu nekk ñu delluwaat ci li nga xamante moom mooy moom mooy moom mbiram mais en tout cas li ma la wax mooy sëñ Touba nee na. kon na dem alxuraan la ak sunna. alxuraan ak sunna. ñaar yooyu boo ci nekkee maanaam alxuraan ak topp yonent bi saa sama. boo ci nekkee loo ma sori sori ku ma jege nga. d'accord boo ci nekkut loo ma jege jege ku ma sori. ñi dina and ak ñom ba fa ma jëm ma boole ko reub ñi dina leen yelbu ñi ma selbu leen nga lox mu leer nañ ko mbi te mën nga ko waxal mak ñep d'accord keneen ku wat sa and nak mhm. duggu ci and politique man ba jaxate waxuma ak ab serigne mhm. damay tontu un homme politique qui a émis des propos politiques te su ma koy wax na nga wax ak yar bi nga xamanteni mom la xey koy parce que nak amna fo bok fo xamanteni mais dafa am ño xam man ñaa dootu bu tuddu sen tour mhm. ci dara pourquoi parce que tout simplement tu l'as vécu je l'ai vécu Sénégal lañ nekk dañ ñemee jël wax tourné ko indi ko si contexte boo xamante yow da nga doon wax dañ koy jël ñu tegee ko nee li leen intéressé mooy jël la jaxase la jaxase population bi donc moo tax intelligemment mën naa wax ak yow li may wax ak yow mhm. te du ma tudd sa tur la taas mais la vérité moi, je vais la dire mooy que ni il faut faire la part des choses gi nga ñu àndoon yow bi saa sam yàlla dafa ne minal muminina rijalun sadaqu ma ahadallahu alayhim mhm. fa minhum man qadaa nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila ñooñu mësuñu soppeeku mooy saaba yi ñu ànd na yonent bi saa ci dara ñii dañ engagé woon fu yonent bi fu yonent bi toog war a dee dee nañ fa fu yonent bi yendu war a dee dee nañ fa mësuñu soppeeku ci dara ñooñu ñooy magu xeet bi d'accord ñi suñuy kilifa dina ñëw topp seen ginnaaw Cheikh Ahmad Bamba dañ ko fi jëlee yóbbu ko nu mu tudd sax euh, déporté ko pendant 7 ans. Gabon ba ñuy jaaree Balwa ba Sénégal. Touba il a fait sept ans Gabon il def fait 5 ans. fait mhm. def ans. Il a fait ans. fait def ans. Il a fait ans. ans. ci dund fait dindi ko il a fait aadama ans. il dara. fait dara Il a tal leneen ans. ko talal sa bopp. ans. Il a fait wa ans. Il a fait Malik, si il a dem di ans. il a fait la wëjëloon bu jigéen muy maa faawaadu wele yal na yàlla taas seen barke ak ak ndijaay muy alfaahi mayoro ah. alaaji maam dafa génn dem jàng ji diine ba muy jàng ji diine c'est-à-dire que mu dem ba benn jamono amaana mu namm mu namm wëjëlam muy ñibbisi wëjëlam bu mu génnee seen ko mu ngi dox di ñëw mu dem ne ndijaayam kee di ñëw dafa mel ni sa jarbaat ma ndijaay ji préparé ko kere ju ndaw fekk ko ci buntu dëkk ba jox ko ko ne ko wàññeekul dellu fuuta dem jàng dugul ci dëkk ba léegi kon ñooñu cest à dikk que daraay àdduna yitteelu leen woon ñu tudd sax Cheikh Omar Foutiou Tall keroog bi nga xamante ay woy juróom toog nañu di ko yóbbu daara maanaam dafa dafa fer même pas juróomi at woy juróom bu góor yóbbu ko mu dem jàngi woy juróom bu jigéen mi ngi toog maanaam xol bi neexul muy préparé ay kii nangam sàngam woy juróom bu góor ne ko maanaam li ngay def nii ay moromam dafay fekk fi mu def la ñuy lekk dañ ko lekk donc li nga ma dégg dañ leen tabax ci ñu bàyyi mbirum àdduna gi nga mbirum politique ñun ñoo ko moom ñun ni leen toppee mooy mbirum yàlla bu nit ñu toogee un an war a am benn tante boo xam dañ fa war a toog pour jàng ci siira yonent bi saa salaam nga ñëw di ñu wax siira faat géwél ak siira ay ay <laughs> doon tëm bi tëm ñii ne maa asu mbay fee ñi tàccu ce qui veut dire qu'on comprend très mal notre mission man day pénc moomu ñuy wax daan naa toog déglu fa góor goo xam ne yàlla yàlla yokk leeram bu ma toogee ba lay guddi je l'écoute d'une manière philosophique de manière très calme de manière très posée il enseignait ñi nga xam moom ñoom lañ jàkkaarloon. mooy le marabout intellectuel. tey bu ñëwee ba toog jotaay bu mel noonu nga déglu ko ba mu jeex tàkk déggoo fa dara la dul ay ay nit ñu taxaw taxaw di xastewaateeg di tuumalaatee def nangam ce qui veut dii que ni.

dépend ma ragné ko lol ci constance am ma ragné ko lol ci cohérence am ma ragné ko lol ci pertinence am donc ça a été un plaisir tant bi moñu xoj mais xamna ni débat bi moom mënoon na gëna a fi donc ba di le remercier am ba neex bi nga dalé suñu plateau ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw bi dal euh, ma ngi sante Sénégalais yépp di leen gërëm di leen ñaan temps nag gis na leen. Euh, par que am le réveil de du MFDC. Mhm. parce que dama mon cercle Marius Sagna mi ngi nek bitim rew mhm. xam ngeen ne gis ni aussi bu sénégalais ñi ngi la voix de la Casamance. le mhm. site de bu Facebook ils sont réveillés ils commencent à dire que histoire du Casamance la vraie histoire. que histoire de Casamance boko de ñom koy Casamance Sénégal. donc ils ont tendu euh, le micro nous mu sax Sané. tay di qu'elle gis ko il a fait un direct à en manding. donc pour wax ak Casamance de mobiliser la masse mm-hmm. donc ce qui veut dire que ni ñu ngi nekk combat pour la république ñoom dañ nekk ci combat pour xam séparation ni ségrégation boo xamante ni ñoom ci loolu lañ gëm mm-hmm. maintenant nag léegi boo demee ba xool ñi taal université bi ñooñu la mm-hmm. bañ ko chantaient un chant une chanson guerrière et j'ai l'habitude de dire que ni Pastef ses couleurs Pastef ses emblèmes Pastef ses objectifs weesul objectif euh, MFDC objectif aussi de l'islamisme politique donc di ñaan sénégalais par aussi parrainage donc ñu parrainer candidat yi nga xamante ñëw nañu wax leen programme mhm. donc ñëw leen wax leen programme te woon dama jàpp ne programme bi ci gën a wóor la continuité avec le candidat Amadou Ba donc euh, au delà il y a Idriss Seck il y a donc les autres ñi nga xamante ni tey jii y a Karim Meïssa Wade y a Khalifa Ababacar Sall y a Thierno Alassane Sall mhm. donc ñooñu man je vois que c'est des candidats yoo il y a Maître El Hadji Diouf aussi à ko ko dañ ko war saluer son courage sa détermination Maître El Hadji Diouf bu mhm. le Sénégal lui doit beaucoup mais El Hadji Diouf il a vécu Euh, ay difficulté yo xam ne bëgg Sénégal moo ko teg man japp na ni tay ji bu fekkoon dañ wax ni dañ wara joxe lauréat di meilleur sénégalais bi nga xamne ne taxawu na Sénégal jamono yi nga am kenn sañu ko woon ah. mhm. parce que primo défendre Adji Sarr yombul woon. yombul woon tout le monde l'a fié diabolisé il l'a pris il l'a prise du moins comme ça fii. Mhm. dégg na ci lu nek ñukoy sant di il est candidat. maintenant aussi wax deug yalla donc il a il a les acquis il a il a donc mais il a Diop ñëpp xam nañ ko mais ñëpp xam nañ aussi engagement par rapport à la à la république ñu koy sant bu baax a maram ko faté won sidi donc wax deug yalla donc mais bon voilà donc di ñaan yàlla Sénégal Sénégal jamm xewal def tawfiq donc yalla na yalla yokku VIP People's TV donc di aussi gars gëna vous abonné la ñaanal subhanahu wa taala li nga li nga li nga Sénégalais may ndaw yi mais li nga xam la balance qui puisse le permettre vraiment de discerner entre le faux et le mal kon yakarna ni non la tagoto fi mu jexale mom la ñi ñëwaat diko ko muy maître El Hadj Diouf qui est candidat aux prochaines élections présidentielles mu taxaw sénégalais aussi moment bo xamanteni sénégalais soxla won nañ ko ñu yak kërëm yak leppam alal dugalu ko ci bës dugalu ko ci ndaxte jamono jum ci dugg yakarna ni kuku gënoon siw ci avocat amul donc ba yalla may ko ci ndam tay donc c'est quelqu'un aussi bo xamanteni dañ ko wara saluer il a beaucoup de mérite aujourd'hui pour le Sénégal nit ñi nak parfois dañ koy jappé benen affaire mais tay Sénégal su excès ba fi takul dara jaxasoowul ñu mëna a dox tranquillement, je crois, que Maître El parce que du Dubaï. Donc, je les remercie encore, Badjakare, comme on dirait. Avec plaisir. Ça y est, on sort là, je suis là. Mon mythe, je suis là, je suis là, de suis faut je des là, toujours avec live, je suis une analyse pertinente, je suis euh, un thème constant, je suis toujours, Askan Bignoti, Djerinuko. Donc, ça a été un plaisir. Je vous dis à la prochaine fois sur Benen numéro, grand entretien sur VIP People TV. Merci à l'équipe technique, aux caméras et au son Abdou Conté, à la réalisation Gouignan. Générique et infographique à l'UNFAL. Pour vos pipes et reportages, contactez les services commercial le 33 825 24 10 ou le 77 751 59 59. N'oubliez pas, c'est jour J-5. On va au de Place pour recevoir le gala des 100 entreprises les plus dynamiques organisées par Ecofinance Entreprises. La particularité de cette année, ça veut dire que le Palme International sera décerné à son excellence le président de la République Macky Sall pour la première fois une fierté de l'Afrique par rapport à ses réalisations, par rapport à ses investissements, par rapport à ses plaidoiries pour l'Afrique, aujourd'hui, Macky Sall sera élevé au sommet et au toit de l'Afrique encore avec cette distinction sur la pointe la plus occidentale de l'Afrique pour célébrer le dynamisme, communier avec la culture du pays de la Teranga, avec la légende panafricaine Omar Pen et la vedance Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Dakar accueille ce 14 octobre la 19e édition de la cérémonie de remise de distinction la plus prestigieuse d'Afrique. Des délégations venues de tous les pays du continent africain commencent déjà à converger sur la pointe la plus occidentale occidentale de l'Afrique pour célébrer le dynamisme, communier avec la culture du pays de la Teranga, avec la légende panafricaine Omar Pen et la vedette des soirées dakaroises Keba en direct sur plus de 11 chaînes depuis le grand chapiteau du King Fat Palace. Réservation au 77 462 0753 ou le 77 170 20 37. Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Ce 14 octobre au King Fat Sponsor officiel 1xBet yow am jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ne la bile pommade moom itam dafa naturel lépp loo ci jël la le bon effet secondaire Jokol ak ñun yow ko yittewoo 77 751 59 59 wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boko amul ñu daal di lay sa ñun rek Hello guys, une bonne nouvelle avec TapTapSend